assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donc ñu ngi fi ci bërebu daare kami man may tudd jibril diallo

à distance dina tax tey foo munti nekk ci Sénégal wala ci aduna nga mun accéder ci ci ouvrage yi donc fu mu nekk nii site bi légui c'est officiellement lancé ñu ngi def benn liggéey bi nga xam ne ñu ngi dugal document yi nga xam ne ay document numérique la ay yi nga xam ne disponible na fii donc képp ku nekk foo nekk si aduna rek war nga mun a accéder ci loolu noonu ku mun a consulter ouvrage yi nga xam ne parce que euh, bu yàgg ba da daan obligé di ñëw ba fii euh, pour def ay recherche pour sur mais léegi nii plateforme bi permettre na vraiment foo di nekk di nga xam mun a accéder ci documents et donc c'est xasaayit donc fi nga xam ne foofu lépp luy xasaayit lépp luy bind Sëñ Tuubaa foofu ñu ko bind am na tamit salle Coran nga xam ne foofu lépp luy euh, Coran yi nga xam ne ay doomu sëñ moo ko bind ak disciple yëpp mu foofu tam ñu daan

taxawaay si taxawaay bi di leen remercier vraiment si ñëw bi tamit.